ci ñetteelu fanu campagne bi ñu duppee CPS paj mi nga xam ni ñu ngi koy def mu ngi wéy kem ni ko ñaar fukk ak ñaari poste de santé yi nga xam ni dañoo bokk ci bile faj ci wàllum sibiru di defee Daaru Xuddoos di benn ci poste de santé yi nga xam ni bokk na ci li ëpp xale yoo xam ni warees na leen faj ci sibiru ñoom it ñu ngi wéyal seeni activité tey mooy euh, sunu ñetteel bi fan nga xamante ni bu fekkonte ni sunu première dose yi joxe nañ ko euh, euh, ci ni nga xamante ni noonu ko recensé woon ci kër yi kon tey dañuy jeexal mais nag li am mooy problème bi am ñii nga xamante ni mi ngi am nga xam ni nii ngi nangu tey suba ñu bañ ñu bañoon nangu tey loolu mooy waral xam naa dinañ liggéey 4 jours yi nga xamante ni moo nekk ci contrat bi pour mën cee dolli sax beneen jour pour jàppalewaat sunu askan. moo tax euh, pour ñu am si atteindre cible bi du ma ni du mat danañ ko jege nag waaye li tax matul mooy li nga waroon a def ci trois jours yi. yàlla dafa dogal te yéen yéen a seen bët que ñu ngi am tey ay recensement yu bees. ci ab xayma téeméeri junni ak ñeent ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent xale yoo xam ni ñetti weer ba fukki at lañu am ñoom ñoom ñoo nekk ci bile quartier ñu koy wax Daaru Xuddoos bokk ci yenn quartier yi ëpp aw nit limub xale yiñ fi fajandi nag xaw naa néew loolu moo tax sax ñuy xalaataat ci yeneen i pexe. suñu couverture mu ngi toll si tey ay 32 virgule 5 pour cent oui suñu premier jui en ak J2 ko boo ko calculé mu ngi ci 32 virgule 5 pour cent c'était ci xayma ci xale yi mu ngi toll ci 5004 enfants yoo xamante ni traité nañ leen ñaax ñaaxaat askan gi ak relais yi avec couverture médiatique bi mooy réseaux sociaux yi ak wàllu télévision yi mais aussi bàjjenu gox yi ñu ngi leen jël ñoom ñëpp depuis le bi activé waat leen pour que ñu gën a nikk de ce fait que man sama J1 bi ma pare euh, résultat wu J1 dama convoqué bi ma analyser dama convoqué samay bàjjen en urgence. ci ñetteelu fanu passage bu njëkk ci campagne CPS bu 2020 équipe yi ni nga xam ni ñu ngi koy liggéeyee ngir fépp ñu mën koo daj mel na ni mu ngi wéy waaye nag am na liggéey wu des ngir xale yi nga xamante ni si duggoon nañ leen ci programme bépp ñu mën leen faj ngir aar leen ci sibiru